fukk ak ñett yonent yàlla nooyin salaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu jub yu mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci luñ mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunu gëstu ci mbind mu sell mi gis nañu ba noppi ne ca njaalbeen ga bi yàlla sàkkee àddina lépp baaxoon na waaye bi sunu maam aadama dégg dile yàlla lu bon daldi jaar ci moom daj àddina law ci nit ñépp ci lu wóor musiba du yem ci bopp boroom ci émission bi weesu nag jàngoon nanu ci mbirum ñaari askan yi soqi ko ci aadama maanaam askanu kayin ak askanu set askanu kayin gëmul woon yàlla waaye ci askanu set amoon na ñu ko gëm ba yàlla jéggal leen seeni bàkkaar amoon na kenn ku soqi ko ci seet tudd enok ñi tolloo woon ak enok jamono seytaane lañu doon topp di dund ci sobe wante enok moom doon na ànd ak yàlla sax ci sellaay tey jii nag dinanu tàmbali jàng ci keneen ku àndoon ak yàlla ci biir jamono ju yàqu rëb kooku moo di yonent yàlla nooyin sëtub enok gis nanu ba noppi ne ca jamono yu jëkk ya àpp nit moo gënoon gudd sunu àpp ndax xam ngeen nit ki gënoon a gudd fan ci àddina mooy metusela doomu enok app metusela matoon juróom ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci at metusela nag moo jur lemet mi bàyyu nooyin yonent yàlla nooyin moo doon fukkeelu maam gannaaw aadama noonu nooyin dundoon na ba am juróomi téeméeri at doora am ñetti doom sem kaam ak yafet ñépp doon ay baykat li nu fas yéene jàng ci mbirum nooyin dina am maana lool ci nun ndaxte bés nooyin ya dañoo niroog jamono ji nuy dund tey ci jamono jooja nag àddina si dafa feesoon dell ak bàkkaar ci téereb njaalbeen ga ci saar juróom benn mbind bi dafa wax ne coxoru nit réyoon na lool ci àddina te fu ñu mën a toll lu bon rekk lañu daan xinte ci seen xol xolu doom aadama yi fees dell ak xalaat yu bon bëgge naa feq ñaaw ñeetaan saaga rëy rëylu xuloo xeex njaaloo càcc boom ak jëfe ndof nit ñi doon nanu yàq àddina si leen yàlla sàkkaloon xëy na amoon nañu diine waaye ngistal rekk la woon bànneexu bakkan moo doon seen yàlla te seen bàkkaar dajaloo ba ca asamaan déglu leen li mbind mi wax booba aji sax ji ne sama xel du werante ak nit ñi ba faaw ndax aw suux rekk lañu wante dinaa leen àppal téeméeri at ak ñaar fukk aji sax ji gis ne joxoru nit rëy na lool ci àddina te fu ñu mën a toll lu bon rekk lañuy xinte ci seen xol aji sax ji tiis ci xolam ba mettitlu li mu doon sàkke nit ci àddina aji sax ji ne dinaa far ci kaw suuf doomu aadama yi ma sàkk nit ak jur luy raam ak luy naaw ndax metut li naa li ma leen doon sàkke noonu gis nanu ni yàlla dogale far ci kaw suuf doomu aadama yi ndax seen njubadi wante gis nanu it ni yàlla ci yërmandeem fase woon yéene muñalaat bàkkaarkat yi yeneen téeméeri at ak ñaar fukk ngir may leen jotu réccu ngir ñu baña a sànko wante ba ab booba matee ci la yàlla sooga àtte képp ku bañ a réccu te nangu kàddoom am na lu nu mën a xam ci jikko yàlla jaare la ko ci àpp téeméeru at ak ñaar fukk boobu mooy lii yàlla mën na muñ lool wante muñam am na àpp dina wax te werante ak nit ngir mu réccu waaye du ba faw looloo tax ca jamonoy nooyin yàlla newoon sama xel du werante ak nit ñi ba faw dina leen àppal téeméeri at ak ñaar fukk naka noonu gis nanu ni yàlla fase woon yéene muñal bàkkaarkat yi ab diir ba noppi àtte leen suñu bañee réccu mën nanu gis ci loolu nag ñaari jikko yi yàlla ëmb maanaam mbaaxam ak njubteem walla muñuk yàlla ak merum yàlla yàlla mën na muñ lool wante mën na mer lool itam am na ñuy xalaat ne yàlla dafa mel ni ku nekk ca kaw tim àddina ak yetam wu rëy di ku gaaw a mer tey am bànneex ci dóor ak a sonal nit ñi wante yàlla melul noonu am na ñeneen nag ñuy xalaat ne yàlla du mer mukk te dina baal tey fàtte bàkkaare nit ñi noonu yàlla baax na yàlla baax na rekk lañuy xam wante yàlla melul noonu mbind mu sell mi nag dafa nuy wax liy dëgg ci lu jëm ci jikko yi yàlla ëmb yàlla ku baax la te jub mën na muñ te mën na mer mbaaxam ak yërmëndem ñoo tax muy muñal bàkkaarkat yi wante njubteem ak sellaayam ñoo tax seeni bàkkaar di ko merloo yàlla musalkat la ak àttekat yonent yi bind nañu lu bare ci mbirum muñuk yàlla ak meram nanu déglu as lëf ci seeni wax mbind mi neena bu leen umple ne benn bés ak junniy at ñooyem fi borom bi di yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit xanaa kay da leen a muñal ndax bëggul kenn alko waaye ñépp tuub seeni bàkkaar waaye bésub boroom bi dina ñëw bett àddina ni sàcc boroom bi dina àtte ay gaayam ndaw tiitaange ci ku sàggan ba tàbbi ci loxo yàlla ji dund moytu leen a lu nag kiy wax ak yéen ndaxte sunu yàlla safara la suy lakke ci sa boor nag lii lanu ci jàng yàlla aji sell ji àttekat bu jub la waxtu wu nekk meram a ngi gën a fuur ndax bàkkaarkat yi bañ a réccu ci liñ ji nag bindees na ci ne merum yàllaa ngi feeña asamaan wàcc ci nit ñi ndax seen weddi yàlla gépp ak seen jubadi gépp ñoom ñi suul dëgg gi di topp lu jubadi yàlla dina leen àtte di àtteem jub na yow nag ndax defe nga ne dinga rëcc ci àtteb yàlla ndax danga xeeb mbaaxu yàlla mi yéex a mer te di la muñal xanaa xamuloo ne yàllaa ngi lay won mbaaxaayam ngir nga réccu say bàkkaar waaye ndegam danga dëgër bopp te bëgguloo réccu yaa ngi dajale merum yàlla ci sa bopp ndaxte yàlla sàkk na bés bu muy wone àttem bu jub bi te meram wàcc ci ñi bon bés booba dina delloo ku nekk ay jëfam kon nag mbokk yi gis nanu ne merum yàlla melul ni merum nit nit mer na mer lool wante gannaaw ga meram di wàññeeku ndànk ndànk ba mu fàtte sax li ko merloo merum yàlla nag melul noonu ab diir wala ay fan yu bare taxul meram wàññeeku yàlla àttekat bu jub te du fàtte dara meram du wàññeeku ci ñiy bañ a réccu day yokku sax ni nu ko jànge sànq ci mbind mi waaye ndegam dëgër nga bopp te bëgguloo reccu yaa ngi dajale merum yàlla ci sa bopp naka noonu niti jamonoy nooyin doon nañu dajale merum yàlla ci seen bopp wante ca jamono jooja desoon na kenn ku bëgg yàlla ci biir xolom te gëm kàddoom kooku moo doon nooyin moo tax mbind mi ne waaye aji sax ji jagleel nooyin yiw nooyin nit ku jub la woon di ku mat ci biir niti jamonoom tey ànd ak yàlla lu tax yàlla jagleel nooyin yiwam ndax nooyin yelloo woon na yiwu yàlla déedéet yiw soo ko yelloo dootul yiw lu tax nag yàlla jagleel nooyin yiwam te jagleelu ko ñeneen ñi lan la mbind mi wax ci loolu lii nooyin gëm na yàlla wante ñi ci des gëmuñu ko nooyin gëm na kàddug yàlla gëm na li yàlla dige woon ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw ci àddina ngir musal bàkkaarkat yi nooyin amoon na bàkkaar wante yàlla àtte na ko niku ku jub ndax li mu gëm yàlla ba indil ko deretu sarax ngir bàkkaaram ni mu ko santaanewoon woon tax mbind mi ne nooyin nit ku jub la woon di ku mat ci biir niti jamonoom kon nag am bés yàlla ne nooyin dogal naa deewu ñépp ndax dajal nañu kaw suuf ak coxor dinaa leen far ñoom ak suuf si yow nag wutal dénk wu ñuy wax sipre yatt ci gaal ngir sa bopp nga sàkk ci ay néeg diw ko biir ak biti ak gudorong te nii ngay defare gaal gi guddaayam tolloog téeméeri meetar ak juróom fukk yaatuwaayam di ñaar fukki meetar ak juróom te taxawaayam di fukki meetar ak juróom nga sàkk ci palanteer ci kaw ak benn bunt ci wet gi nga def ko ñetti wàll yu tegaloo bi ci suuf bi ci kaw ak bi ci digg bi dina indi mbënnu ndox ci kaw suuf ngir far lépp luy dund ci ron asamaan lépp lu nekk ci kaw suuf dina dee waaye dina fas kóllëre ak yow te dinga dugg ci gaal gi yow ak say doom sa jabar ak say jabari doom te nga dugal ci gaal gi ñaar ci wirgoy mala yépp bu góor ak bu jigéen ngir sàmm seen bakkan ak yow te it nga sàkku ci bépp dund denc ko ngeen dunde ko yow ak ñoom naka noonu yàlla waxoon na nooyi ni mu façon yéene indee mbëndu ndox ci kaw suuf ngir far képp ku bañ a réccu te gëm dëgg gi yàlla waxoon na nooyin ci anam yu leer ni mu wara defaree gaal gu rëy ngir rëcc ci mbëndu ndox ma guddaayu gaal ga waroon na toll ci téeméeri meetar ak juróom fukk maanaam waroon na tollook benn terrain wu football ak genn wàll waroon a nekk rawukaay ci nooyin ak njabootam ak bàyyi ma yu bare ak képp ku bëgg rëcc ci mbëndu ndox ma yàlla sant nooyin mu def ca gaal ga ay néeg yu bare ak benn bunt noonu xebaaru yàlla ci niti jamonoy nooyin moo doon lii képp ku bëgg rëcc ci àtte bi faw nga jaar ci benn bunt bi gaal gi am képp ku jaar ci bunt bi dinga mucc ku jaarul ci bunt bi dinga sànku noonu nooyin tàmbale tabax gaal ga sas wu rëy la woon nooyin ak ñetti doomam yi wara gor ay téeméeri téeméeri garab yu rëy dagg ci ay bant yett daaj def ci godorong biir ak biti ak yeneen sas yu bare bare jabaru nooyin ak jabari doomam it di leen jàppale ci liggéey bu metti boobu diirub téeméeri at nooyin ak njabootam di liggéey bés bu nekk ba yett gaal gu rëy googu wante nooyin yemul ci daaj gaal ga rekk waaye mu boole ci di waare ci niti jamonoom naan déglu leen yàlla aji sax ji wax na ma ma artu ngeen daw meram mi nara wàcc merum yàllaa ngiy fuur ndax seeni bàkkaar te dogal na indi mbëndu ndox ci kaw suuf ngir far képp ku bañ a réccu wante dama leen di xamal it xibaar bu baax yàlla ci yërmandeem sant na ma ma defar gaal gi ngir mu nekk rawukaay ngir képp ku tub ay bàkkaaram te gëm kàddug yàlla noonu nooyin artu leen ak yeneen kàddu yu bare di leen dénk naan rëcc leen ci niti jamono ju dëng ji lu ngeen ci xalaat ndax niti jamonoy nooyin gëmoon nañu kàddu gi leen yàlla yëgal jaare la ko ci yonentam mënuñu ci tontu léegi ndaxte sunu jot jeex na wante émission bi ñëw ci coobare borom bi dina dinanu wéy ci nettalib yonent yàlla nooyin ba gis ni yàlla musale woon képp ku gëm doom ak ni mu àttee ñi ko bañ a gëm ba labal leen ci mbënn mu rëy ma su ngeen amee laaj yu jëm ci li nuy jàng ci émission yoonu njub bind leen ñu ci boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci lii jàng tey ci mbind mi li yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit xanaa kay da leen muñal ndax bëggul kenn alku waaye ñépp tuub seeni bàkkaar